si moom yéen moom yéen ci gën a saf Khalifa Sall loolu moom mooy indi dialogue bi dialogue c'est pas la première fois mm-hmm. Amadou am na lu mu ci rappelé mais da ko da dagg si dialogue yi commencé 2011 ñëw fii mais dialogue dafa ma sàmm mm-hmm. tout le temps dialogue dafa ma sàmm mm-hmm. surtout à l'approche ou à la veille des élections je pense que le Sénégal a initié des dialogues qui ont permis quand lu ñu ko mënta waxee de constater à la suite des conclusions de ces dialogues là des avancées démocratiques et la consolidation de ce qu'on appelle l'état de droit. Mmh. avant dañ doon voté ni ñu neexee am benn góor boo xam ne nii ay waxambaaneem la yor moo yor waa dëkk bi bu ngeen ñëwee war a voté ji day toog fi ñuy voté ngay look moom di nga voté mais doo voté xel mu dal doo voté ak ñeneen. Mm-hmm. donc soo ko xoolee bu la nee Maria nga xam ne kii xam nga li ma la wax. da ngay jël bulletin nga dugalal ko. dugalal ko mais loolu lu ko fi dindi. waxtaan moo ko fi dindi waxtaan moo ko fi dindi. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ doon voté sans l'électorat loolu lu ko fi dindi. dialogue. dañ doon voté sans moom urne. lan moo ko fi dindi. dialogue moo je pense que le dialogue en soi il n'est pas mauvais. il est utile il est très important et c'est ce que nous devons faire. à très réguliers. mais sur la préoccupation des Sénégalais et pour régler des problèmes d'ordre public. d'ordre public. et je pense que en partie lii moo différencier dialogue bi. ak dialogue yi am entre 2011 ak léegi. ak léegi am na ay dialogue ay dialogue yu léegi am na ay dialogue dialogue yoo xam ne nii gouvernement bi ak président suñu ñëw ñoom ñoo indi seen ay termes de référence. Mm-hmm. cette fois-ci ñi doon ñëw ci dialogue bi ñoo indi terme de référence donc premier accord bi ñu am ci terme de référence yi la nekk. ok gouvernement bi daf teg ci table ji ay terme de référence am ñee ñu teg ci table ji seen technique de référence. Mm-hmm. waxtaan bu jubóo ci terme de référence. Mm-hmm. terme à la mise la table de référence, mhm. de référence et à la mhm. validation des termes de référence. loolu c'était important mhm. waaw tey si dialogue waaw. donc mun mun nañ xaarandi daal que ni euh, peut-être ni peut-être euh, comme ni Amadou wax am na ñoo xam ne am nañ sous réserve comme comme waa euh, nu mu tudd société civile ah lañ ko waxee dans les journaux ils ont dit oui Sud Quotidien moo ko bind oui ci conclusion dialogue bi mais avec un grand mais. loolu la ñu wax le oui mais de la société civile. Euh, je peux comprendre parce que dans le cas de ce dialogue-là il y avait quatre pôles. Mm. Il le pôle de Macky il faut l'appeler comme ça il faut avoir le courage de le dire si il y avait le pôle de Macky Sall. mooy mooy mooy non c'est le gouvernement le, le pôle de Macky Sall ouais. il y le pôle de Macky Sall. Mm-hmm. non les non alignés. le pôle, euh, mm-hmm. de la société civile. mais mm-hmm. il aussi le pôle de l'opposition. OK. ok taxaw c'est toujours incrusté dans l'opposition taxaw et dans l'opposition taxaw et de l'opposition mhm. taxaw a défendu les positions globalement de l'opposition ok maintenant c'est des discussions mhm. donc c'est des gens qui font des propositions les gens mènent les discussions à la mhm. fin on aboutit à des conclusions qui sont obtenues sous forme de consensus, de consensus et qui sont consignées et je pense que du ñu waraat. du ñu waraat. je pense du ñu waraat. <laughs> du ñu ah on espère. kon dañu leen waroon non. parce que ñoom ñoo ko wax yeneen dialogue yi. dialogue ñu doon dem dialogue avant ñun dem ñu woon dialogue on était en prison. tout le peuple sénégalais tous les politiciens en 2019 étaient au dialogue au moment mhm. où Khalifa était en prison lui-même il était au dialogue ah, si loolu laa nekk di wax dama déglu j'ai dit ko représenté woon ci dialogue c'est ce prison mhm. avec ces gens qui étaient pour dialoguer on a dit qu'on a participé tous les dialogues ñun on est constant on est cohérent ok totalement contre la mhm. politique de la chaise vierge cest à li ñu war a wax dañuy dem toog fa ko war a waxee wax ko fa waxee dañuy xeex politiquement pour jël li nga xam ne nii. Mhm. yaakaar na ne nit ñi ñoo ci war a jëriñu. ok donc xalifa boo xool lu ko jëriñ rek. en 2019 lu dem ci dialogue donc il a été hmm. sur toute la ligne cohérent donc hmm. cette ci aussi nous sommes partis au dialogue mais mais dialogue que ba mu ca yónnee ca lañ ko génne non ko demee yónnee yu bëree bëri yu ñu waxoon ça n'a en compte contrairement peut-être mais biñ paree di génn na kaso mais loolu moom moo ko génne kaso ndax dialogue bi àggul boobu lañ nekk di àggali leneen moo ko génne kaso moom loo ko génne kaso mooy moom il n'avait pas demandé à ce ñu jàpp ko tëj ko kaso parce que tout le monde sait qu'il fait. Hmm. Khalifa tey il est calme serein il a les mains propres Khalifa n'est pas en situation de négociation il ne négocie pas il ne négocie rien du tout macha allah mais tey yàq nañ deram comme ni ñu nekk di yàq deru Ousmane Sonko jéebaane nañ ko def nañ campagne de dérèglement et de communication loolu la nekk di setal mais pas leneen. d'accord